tàggoog soxna soo xam ne kenn xamut noo koy ndax lépp loo wax rek. sëriñ bi nañu ngi tàggoog soxna soo xam ne kenn xamut noo koy melalee. ndax lépp loo bëgg a wax ci moom rek moom ëpp na loolu. ndax lépp loo bëgg wax ci moom moom ëpp na loolu. boo waxee mbaax romb na foofu. soo waxee mbaax romb na mbaax. boo waxee diine diine rek la xam. boo waxee diine diine rek la xam. ndax ci la fekk yaayam ak ak ñuy waa diine. ñu ànd mu ànd ak ñoom ci diine jooju. mu ànd ak ñoom ci diine jooju. yàlla may na ko. yàlla may na ko. loo xam ne. loo xam ne. addina bi yëpp seede nañ ko. addina bi yëpp seede nañu ko. mën nga wax ne. mën ngaa wax ne. yaayi borom xam-xam yi la. yaayi borom xam-xam yi la. yaayi jàngkati alquran yi la. yaayi jàngkati alquran yi la. yaayi mokkalkati alquran yi la. yaayi la. yi la. yaayi imaam yi yaayi miskiin yi miskin yi la. yaayi miskin yi la. boo demaan néegam. boo demaan néegam. di ko seeti. di ko seeti. ñu simple nga fay fekk. nit ñu simple nga fay fekk. mu mel ni kenn ci ñoom. mu mel ni kenn ci ñoom. di reex ak ñoom. di reex ñoom. di leen yaatal. di leen yaatal. ngay muy jaxasoot nit ñooñu rek ngay fekk muy jaxasoot ak nim yem yëpp nag ak nim hem ñëpp nag ndax mooy mooy mooy yaayu Assane imam Assane Cissé ndax mooy yaayu imam Assane Cissé mooy yaayu Cheikh Tidiane Cissé mii mooy yaayu imam Cheikh Tidiane Cissé mii toog mooy yaayu Mahi Mahi mooy yaayu Cheikh Mahi Cissé ñooñu ku ne xam na ne ñooñu ku ne xam nañ ne soxna su jur soxna su jur dañ lay séentu nga nekk princesse. nga nekk buur. dañ lay séentu nga nekk di buur. waaye moom boo demee yooyu yëpp wan na ko gannaaw. waaye moom boo demee yooyu yëpp wan na ko gannaaw. gisu ko gisut ko. faalewu ko faalewut ko. miskin yam xamoon rek. miskin yam xamoon rek. miskin yam xamoon rek. ñoo la gën a bëgg jaxasoo ak ñoom. la gën a bëgg di jaxasoo ak ñoom. demee néegam loolu nga fay fekk. boo demee néegam loolu nga fay fekk.